Euh, euh, euh, nu mu tuddati Maimouna Bousso moom dafa génn di défendre kii Madior la maajoor waaw Binta Diallo li mu def nii lii lañ doon xaar ci nu mu tuddati Maimouna sans limite la dem waaw kii nee na Massale a sorti vingt millions Massale génne na vingt millions gis naa ko di ko jox ay jigéen mais mais après fi mu nous ñoo yor mi ñoo yar xaliss bi comme ñun dañoo pétrole bi di ñew ñom ñokoy naan mais ne Bousso elle m'a déçu elle m'a encore déçu ne Bousso ah gars xol leen ginaar gu rafet bi ah machallah ginaar gi mom Même même ne Bousso elle m'a vraiment déçu parce que bañ ko passe ci ma Ndella major mu koy défendre déggu leen zone d'intérêt déglu déglu. Euh, am na yoo euh, je considère que. Ndella Madior je suis démocrate. waaw mu nek ci rew ku nek defal la neex man lima ma intéressé ci loolu lay wax ci lay top li ci des am yu nekku ci suma rombe sa sax ko xol dafa am lo xam ne waru ko wax. problème c'est vrai que dal na Ndella Madior. Euh, mais mi ngi koy défendre. déglu parce que c'est une sœur. ci jigéen.

xalé yi di circuler ay xalé yu ndaw amuñu benn conscience xalé yi di circuler amna na benn bébé buñu wone muy pousse xaw ma pousse puus la yor xaw ma di ko puus am na ci mbagg bi lañu japp jàpp benn loxo rek yëkkati ñi ñu boot leen ñi di joy mu dajale leen ci ay lal image surréaliste image yooyu rek boko gisé rek yow da nga nan ki bo yaakaar ne ku bax la Waro genn tay di wax ne dafa bax elle va rebondir la moy rebondir kon dina kasso ndé ndé la Madior elle doit pourrir en prison pour dix ans parce que ci làmminam moom nee na bébé Souleyka xaw ma Sambaka Souleyka dee na dañ ko jox quatre biberon mbindaan bi moo ko jox quatre biberon mu dee moom moo ko waxal ci boppam Séné Sénéweb Ndella Madior loolu rek xale boobu dee rek war na tax yow ndey ma même na Bousso waroo ko défendre lépp lu mu defoon ci lu rafet parce que bébé bi du sa bebe moo tax mun na Bousso bu doon bébé bi sa bebe la doo wax ne ndey euh, euh, kii ku baax la jàmbaar la te du benn bébé moo dee am na beneen bébé bu dee dégg naa Youssou Ndour la tudd la ko tuddee ñii mu tuddee leen ay Sadio Mané am na si xale bu mu yor nii ne xale bi dafa amoon asthmatique am na nee na xale yoo xam ne seen biir day daw parce que biberon bi raxasuñ ko moom ci boppam moo ko nettali elle est une psychopathe xam nga la mooy psychopathe kuy nettali di wax ne xale dee na sama kër te yow defuloo amuloo benn émotion elle n'a aucune empathie c'est une psychopathe elle n'a pas de conscience parce que man bu doon lii sama kër la la la la amee xale dee suma koy nettali dinaa jooy sax dina ne oh ndeysaan commencé jooy ne xale bi dee na mais non xale bi dee na xale bi dee comme weñ ci moom comme ginaar comme ginaar bu dee comprendre nga mu ne waa Pastef ñoo ñëw rey ko ñoom ñoo ñëw infiltré ko naan waaye kër gi dafa am ay ay ay mbóot bien sûr mu ne mu ne euh, euh, Adja Saliou la xaw ma journaliste boobu xaw ma lan Ngoone Saliou mu ne ko non pas Ngone Saliou journaliste Seneweb bi ne ko fii dafa am ay mbóot ñu ne dafa am ay mbóot mu ne ko yow sa kër amul mbóot mais mbóot bu amee dañuy jël baygon ñu pompe ko mu jeex mais nan ngay jëlee ay quarante cent xale nekk ci kër ngay bay ngay baygon xale liir est-ce que war na mën a noyyi baygon yow may mënu bu so nga koy défendre dégg leen ko. xam ne euh, ngay xam ne ni vraiment euh, jigéen bu am. ñii ñooy représenté Pastef nee na bañkat la. Dengar, bankat la ñu ngi ko ki dof la Maimouna Mbuusu mii ki dof la yàlla nag da koy wax fi américaine ni blonde yi ngeen di gis xalamaa na am euh, yàlla américaine dañ koy wax en général se gisee blonde bu rafet am ay bët yu bëla jigen bu rafet en général du ñu am xel mooy Maimouna buso rafet nga trop macha allah mais sa xel bi dara nekku ci lan la wax léegi dañ koy félicité nee na dañuy félicité Ndella Madior Diouf kii mooy waxal pastif qui moi dem di utal parrainage Jomaay euh, Fay Moi, tax foo leen ko fekk elle est souriante Sonko mingi ngi ci jàmm seeti naa ko patati patata déglu quoi, ko. encouragé encouragé mais li tax ma nekk ci mal à l'aise moi, il s'agit d'enfants. Non. Euh, dans un premier temps. Wow. je disais que dès la limite de nii. Wow. première intention oui. Wow. c'est très noble. Wow. c'est très noble. parce que.

mom ci bopam mo len di met amna ci ño xamne kërëm ci bir kërëm lañuy juré mom ci bopam wax nako néna man may dag cordon ombilical bi jumbax bi affaire bi fumuy nek nonu mom moom moo koy dagg kon may mëna a boy wax xamal li ngay wax di wax intention yu bax la amul amul intention yu bax may mëna a tu es tu es trop bête tu es belle mais tu es trop bête ki amul intention yu bax ki business woman la da fay liggéey ci xale yi di len tuddé ay Sadio Mané xale yi amuñ sax identité c'est des bébés objet ndax bébé bu juddu dafa wara am identité bopam. mu tuddee ko euh, ngou tuddou sa bop euh, euh, yaay moko wara tuddé Moussa wala mu tuddé ko Mohamed ne ki julit la wala mu tuddé ko Jésus Christ Robert ne ki chrétien dafa wara am identité yaayam identité papam mais bébé yi amuñu identité ce sont des bébés objets mu tuddé len ay personnalité parce que mom loolu lay séntu xaalis la ci wour la ci wour ndax ko tuddé Youssou Ndour ñii nga tuddee leen Sadio Mané ñii nga tuddee leen ah ah Ablaye Wade Mansour Faye ah ah ñu am xaalis rek la leen di tuddee kon moom yaa yaa cette euh, euh, euh, cette attitude mercantile xam nga moom xaalis la ci ut yow nga ne dafa am intention yu noob parce que yow yow may mun a buso boo demee xam naa tuddee na la ci moom mii di wax boo demee am na ci tur am na ci doom am na ci turandoo ku ñu tuddee ngay jaay bi pànk Ah, xaw pank nga jaay ah, grande dame ah wala grand monsieur yónnee un million ñu def ngénte man man lii musuma ko dégg man maa ngi koy doog a dégg man xaw ma ne sax genre affaire yi am na Sénégal lii man maa ngi koy doog a dégg mais lii man suma ko teeloon dégg dina ko dénoncé dinaa ne lii yëfu yëfu caaxaan la parce que nit jur doomam tuddee ko tur nga tuddee nga koy tuddee Sadio Mané am na jigéen bu ñëw di récupérer doomam mu ne ko il faut nga jox ma cinq million pour ma delloo la sa doom kooku moo porté plainte loolu tax mu am problème

léegi ko moom politicienne la day jël ne Macky Sall la ah, ministre bi dëgg la dëgg la moom ñëpp xam nañ ne <laughs> Sénégal moom <laughs> ku fi nekk di wax Macky Sall moo def nii da ngay perdre sa ay bébé ñoo dee ci ay ci benn hôpital ñaari yoon ay ay pouponnière di lakk xale yi di dee loolu moom soxlawul ngay wax Macky Sall li ñëpp xam nañ ne vraiment Macky Sall ay ministre am gat defuñu ko moo tax tey amul bilan parce que moom day jël ay nit yoo xam ne xaalis la ñu mu teg leen fenn ñooñu bu ñu waree investir du ñu investir sëgam Aliou Sall sëgam Aliou suñu entraîneur bi mu tudd Aliou Cissé moo ñu indil Coupe d'Afrique mu toog 6 mois fay ñu ko nga xam ne Macky Sall administration te boo demee Macky yëgu ko sax administration lekk xaalis lañu fi nekkee kon balaa ngay wax Macky Sall Ndella Madior mooy sorcière te warul génn keso jigéen bu bon la. jigéen bu bon moindre la major jour. c'est une psychopathe c'est une tueuse en série ñaari bébé lañ wax ñoo dee boo demee ñu ëpp ñaari bébé dee nañu reykatu nit la amul yërmande Titna. na na parce que baadoola bu am xaalis mon baaxul kër googu nu mu rafetee rek boo ko amee loolu lan lan namati waaye baadoola bu doon am ay milliards du ko xam te dina def loo xam ne lay ñàkk te wa aper ni lañ xamee dinañu tëj Madior Ndella Madior ñu nangu xaalisam yëpp la ñuy nangu parce que waa APR dañoo tiit Ndella Madior dootoo ko defati Binta Diallo merci ndax wax ji nga wax day tax bu ñu ko doon bàyyi sax duñ ko bàyyi ñëpp a war a génn dénoncé ko nañ ko tëj ba caabi bi damm parce que xale bu dee moom xale boobu waroon am avenir ka dee ah beneen xale bu ñuy tuddee Youssou Ndour am na ko ko fi bind bu dee loolu dëgg la dee ñaar au nom de yow ngay continuer du dund di di loolu pour lan te Ousmane sonkoo ngi nii deful dara ngeen ne wax ne dañ ko war a tëj Binta Diallo yaa waxoon Ousmane Sonko dafa dañ ko war a tëj kon kii nan lañ ko war a def dañ koo war a tëj ba caabi bi dam warutul génn parce que jigéen bu bon la nekk ci réseau yi di xas nit ñi di wax ay affaire yu ñaaw rek la def tey nag tey nag du ma ne ak sonkoo sax mais li mu def ci ñaawteef moo moo retourné wu ci kaw parce que deful dara Sonko saaga Sonko moom loolu dara waaye bébé bu dee moom.

ne Ousmane Sonko ñoom la ñu joxañ parce que Maymouna Bousso fu mu toog nee na Ousmane Sonko dafa war a tànn fii rek wax na ko fii wax na ko fii émission bi dem ba moom koy seetaan nee na Ousmane Sonko dina tànn dina joxoñ keneen ku fi joxoon ñu doxaan sax Pastef ku fi joxoon ñu joxaan doxaan sax Sonko dafa war a bokk ci élection yi bàyyi leen ñàkk fayda di déglu Pape Alé Niang mu leen di mu leen di nelawal Pape Alé Niang Moustapha Sy dafa mel ne moom lay liggéeyal dafa bëgg Sonko joxoñ Moustapha te Moustapha Sy am na muy demee du bokk Karim Wade du bok Khalifa Sall du bok Barthélemy Diaz du bok Karim Wade Khalifa Sall ñom ñep mak dina dina rak sen dig doomu kharam yi ngeen doon man le le le le dix le kañ le douze janvier la yakamti date d'invalidité des dossiers date d'invalidité des dossiers la yakamti le douze janvier yalna, Macky Sall comme moy mooy dagg bopp yi Pape Macky Sall moy dagg bopp comme yéen ngeen ko tàppat jox ko ay pouvoir na jël pouvoir na jël le sabre jass bi dagg ndey bopp opposition bi yëpp kenn du bok Sonko bok li ay itam kenn du bok ñu xol lan ngeen di def doom xaram yi ngeen doon jaam yu bonni senegal bu yàqoo yeena tax mu yàqu li affaireu ñaawteef yi am bo leen defon bloc ngeen nek ci ginaaw Sonko Sonko nek president bu ñëwee 2024 li yëpp day jeex boolu bi koy def ne ma Madior juuf kesse yeen ñi si ngeen même Maïmouna Bousso si ngeen bok yeen ñi yëpp si ngeen bok parce que tay yow askan bi boo leen teer taraaru loon Ousmane Sonko bolon ko trahirul ba mu parce que Sonko dafa ne bolon ko trahirul nga nek ci 2024 problème yi yëpp day jeex sàcc bi day négligence day jeex ci hôpitaux yi mais Sénégal amna yu gëna a yi yu fa xew nit ñi dafa Sénégal jikko ñoo xam lu tax gis nga gaay ngor nit ku il faut mu lek Sénégal dafa

ministre jóge fa le ne la kaay pistolet ngi nii tiireel am na nu muy demee nga commencé tiire te pourtant yow nit ku baax nga ah loolu mooy problème bi dañoo xiif nit ñi dañoo xiif ba nga xam ne senegal jikko yi dafa yàqu sénégalais day sacc léegi sénégalais day truand mais day làqatu ji wax ne julit laa jullit la mais ko bàyyeeg sa téléphone bu waddee fii am na foo xam ne bu fa sa téléphone waddee man fii may liggéey bato bi des fois sama téléphone dama koy bàyyi fàtte ko dem 30 minutes ma ñëwaat fekkat fa téléphone bi fu mu nekk mais Sénégal nit ñi il faut que ñu lekk ñu il faut que ñu naan moo tax mais nag mais même ñi am xaalis sax dañuy dóor parce que ndeyama moom baadoo la moom. parce que kër gii moom ku ko am waratoo fi nekk sax naan da ngay da ngay ut ay bébé di leen tuddee ay Sadio Mané. combattre politiquement mais il faut pas tout mélanger avec la politique. dégg nga. ah tey euh, je ne suis pas d'accord avec Ndella. waaw.

bu Sonko ci la de ay lan mo ci On war ko dénoncer wala patriote ñun duñu ay sénégalais ñu ci Sénégal amuñu droit vous nous lu ñaaw ñu indi ñew wala parce que dañ farak sonku donc dañuy dindi suñu suñu amatuñ droit wax ici tu ne sais jamais vu ñaari bébé bi ñu ñu ñun ñëpp ministre que c'est parce que nous contre ministre bi wala parce que ay ay être humain lañu il faut que Ndella Madior identifier ay adversaires. am yaa ngi mm-hmm. xam kan adversaire mm-hmm. parce que là elle s'est trompée lourdement elle ne s'est pas trompée parce accusation grave elle ne s'est pas trompée c'est une sorcière Elle wax fait dafa am ñu def ay montage dafa am ñu def ay collage mais montage tax na ay xale homme wala ay xale je veux même pas savoir ce qui se passe là-bas parce que comme je ah dis ah bon man a responsabilité juge Ndella Madior. <laughs> parce que je suis ne responsabilité juge c'est parce que naa nga ci wala da business ak wala ak responsabilité te télé yi di wax responsabilité Bo bëgg jël responsabilité si la laajee nga ne waxuma laisse c'est une sorcière elle doit pourrir en prison Qui warul le génn kasso du question li mu doon saaga Sonko waaye xale bébé yéen après dinaa leen woon image yi dinaa leen woon image yi boo ko gisee sa day daw xale yi ñu dajale leen nii comme ça ay lire ñu leen di dajale mais c'est c'est c'est c'est c'est extraordinaire c'est digne d'un film de fiction film de science fiction ay xale ñu teg leen comme des des des bébés objets ah non mais c'est extraordinaire dans un am nga nit sañ-sañ yu am yërmande ba tuddee ko kër yërmande ku sànni. dégg nga téye mhm. mais loolu ak ubbi pouponnière ak fat ay loxo. Mhm. loolu ak fa am lépp ñoom ñoo ko xam man xamuma ko je crois mi ngi contredire boppam sànq dafa ne dafa am ñuy jur sànni léegi ci boppam moom ci boppam nee am na ñoo xam ne ñoo fa nekk di wasin. kon kay jur saani amu fa moom moo leen di meeb damaa leen dimbali dinaa leen def lii dinaa leen dimbali xale bu bu biir sonn amul fu mu jëm nga ne ko kaay dinaa la dimbali dugal ko ci kër gu rafet ah noonu la leen di meebee nga naan xamoo lu fa xew. état bu nërmeelu nag day ci faay yëpp dina yëngalu ko sax. wane wu ci la kay ñu foog ne par par loolu mais day wane bu ñu waxee rek ñu ne état état état. Sénégal yu gën a graaw yi am na fa accident yi rek déjà ñu fay dee chaque jour waxu leen ci. parce que lii weesuwul euh, démission de l'État parce que quand même ndeel ak doom yi nëbbu leen làqu leen ci kanamu Sénégalais yëpp la leen doon wane di leen jox ay tur. di leen di leen yow mi sax xam naa ne am nga ci turandoo ñëpp di ko seetaan kenn mësu ci wax dara. donc il faut aussi que ñun ñu arrêté. Mm-hmm. sunu yooyu ñuy def dañuy gis dara xam ne lii fu mu jëm du baax ñu ne patt di noppi di seetaan. à commencer par l'État et la société. ministre de la femme anam mhm. ministre de la petite enfance anam mhm. ministre de l'intérieur anam Anam barricade ay politique protection de la petite enfance ah, Allez, de la santé est-ce que tout se passe bien mais un problème après nak ñu bëgg jël les responsabilités bu ko këpp ci kaw ay Ousmane Ousmane Sonko li ko li mu c'est sérieux doy na ko. Mm-hmm. yaa ngi dégg biru politique le mbiru avenir Sénégal patriote nak ay sénégalais lañu. waaw man ak yow. lu xew fi ci Sénégal am nañ sañ ñu wax ci addu ci. au contraire ce sont des sénégalais tellement conscients. waaw que bu ñu gisee benn mbir. waaw. dañ koy def sen combat personnel. deug la mais il faut savoir raison garder. waaw xol combat wam xol ñan lay xéxal ak ñan la dul xéxal

waaw état démissionné na ci si secteur yu bëri bàyyi nit ñi ku nekk di defal boppam dëgg la amee nag ñuy taxaw naan dañ lay état na def liggéeyam na état wax li na état wax li mais état dafa war a taxaw du début à la fin dëgg la lépp loo xamante ne dafa soxal doomu aadama lii nag c'est quelque chose de malheureux déglu leen ko rek Deng. nga est responsable mais n'est pas seul responsable. Deng. si elle est responsable l'état est responsable. gis nga mi ngi défendre ne la parents yi nga xamni ñom ñoo jël sen ay doom jox ko ko. Ah. Elles sont responsables. gis nga kay li la bëggoon déglu. elle est trop belle mais elle est bête Li la wax wax euh, am américain am na benn terme buñ ko utiliser ah fàtte terme bi Jigen buñu violer. nga ne ko lo doon dox guddi bañu violer la par exemple Néna, na yi ñoo jël sen dom jox ko jox ko jox ko euh, euh, euh, Ndella major Légui mi ngi attaquer jigéen yi loolu lan lañ ko tuddee américain amna ben terme buñ ko utiliser. Xawma lan victimisation du question victimisation mais non Faté na duñ ko tuddee mais mo dal nit ku ñu ku ñu violé kooku waroo ko wax né ya sol sœur da nga waron sol jean, mom la may mënu bu so di def ni léegi mi ngi attaqué maire yi nga xam ne nee na ñoo jël seen doom jox ko jox ko euh, Madior Ndella Madior di kooba kooba la sorcière la bu waxee ba wër la di ko jox di nga ñëw këram ne kaay parce que imaginer yow nga nekk étudiante biir amoo ko la dimbali Ndella Madior ñëw ne la ñëwal sama kër am na 300 mètres carrés la salon bi dinaa topp sa doom dinaa ut dinaa la utal dimbal doo dem da ngay dem kay léegi Maimouna Bousso mi ngi xas maire yi déggu leen Soin alpha, certes, avortement, c'est pas autorisé, mais aussi on t'a pas demandé soo durée d'homme nga xool ko ko mën a nga dem jox ko ko. sa comme ça de façon euh, et puis tu ban cadre juridique. dégg nga mingi mingi mi ngi mi ngi wax ne ñoo te moom mu mel du parce que yow tu es aisé da nga amoon kër Almadies de 500 millions mais mbindaat bu jugee Gosaas ñu biral ko muy waajee wasin ma jor ñew ne ko kay ma duggal sa kër nga nan ko da nga wara bañ c'est-à-dire mom jigen la mais xamul leen ni jigéen yi li ñuy dund xamu ko mais mun a buso déglu ko dafa am cadre juridique bu koy encadrer quand on abandonne voilà, mais son enfant est-ce qu'il y a un cadre juridique voilà, mais qui permet ça aussi d'abandonner son enfant à une tiers bu mu dara mais il y a tellement de questions que les gens peuvent se poser mais aussi on ne peut pas résumer ça

am na yu am ci crèche amna crèche bu fi benn ku ñu dénkaane woon doomam di fay. mu dee par négligence fan la mujj. Mm-hmm. début bi de xawon nañu dur sur les crèches maintenant pour rombu bopp koñ bo rombu gis ko ubbi crèche est-ce que ku nekk mo wara a ubbi crèche est-ce que ku nekk mo wara topato crèche nit ku wara xol ay xalé war nañ def ci mom ben analyse psychologique pour xam est-ce que ki war na mën yor ay. ndey may mom ñi nga xam aussi ñu compliqué. analyse psychologique Ndéla mom ku ko xool xam ne wérul Ndéla maa émission yi mu day génn di wax ay live di wax fi sama doom li di wax nga koku ba mu yoré di wax né dafa yor ay doom wara a ngeen xamné ki warul yor doom. c'est ça parce que neex na ñu tuddé le doom nga def affaire folklore nga dem du xool nga dafa am yoo xam. gars yi doy na waay parce que tamit il faut que ma avance tuuti ki mi ngi wax ci alu nguy Ndiaye ak papa Alé lan mo tax papa Alé invité alu nguy Ndiaye man sax duma wax alu nguy Ndiaye parce que alu nguy Ndiaye au moins. invitation bi pa am na njëriñ parce que wax na ne Sonko dañ ko war a jox parrainage loolu Aliou Nguy Ndiaye wax na ko tey liir naa observateur ñu ne observateur wax na ne Aliou Nguy Ndiaye nee na Sonko dafa war a bokk kon kooku <coughs> wax dëgg àndulatul lag Macky Sall ci benn côté nañ waxante dëgg <coughs> mu ngi défier Macky Sall mais ça ne veut pas dire que du appuyer Macky Sall de parce que ñoom ñëpp ay politiciens lañu mais au moins am na fit mu génn mu ne. Sonko dafa wara bok lolou kuko wax ci Macky Sall Macky Sall da lay dàq dañ waxante deug parce que tamit naa fekk baaxul waaye Pape Alé ñëpp xam nañ ne businessman la Macky Sall dafa téy passeportam téy ordinateuram ordinateur liggéey yi mu daan def France di am xaliss amatu ko légui chaîne YouTube am rek moko koy indil xaalis ci lu bu ëpp bu la invité amna nu muy démé mu la jox ma xaliss est-ce que est-ce que est-ce que sa way joxuko xaliss pour pour participer ci émission est-ce que gaa gàkku ba koy wo diko wax ñëwul sama kër ñu def fa émission Pape Alé Niang yagar yagar yi dem ba kër Malick Gakou lu tax Malick Gakou ñëwul ci plateau moom mu dem ba kër Malick Gakou du ko defal émission Malick Gakou ñaata la ko jox Pape Alé Niang businessman la moo tax muy public muy polier YouTube bi chaque jour mu génne deux trois man YouTube la nekk man lu bon bon aw ma dara mais lu bon bon mën naa am lu mu dee dee dee dee dee ah dama naan am cent mille deux cent mille euh, YouTube cent mille deux cent mille par mois YouTube xam nga par mois youtube ay millions lama indil waxatuma lak pam taala ñam nga xamne 680 xawma ñaata 600000 abonnés la am xam nga te buy defé vidéo 100000 personnes sétan ko xam nga vidéo 100000 personnes ben vidéo bobu rek mën mën nga ci gagner ben vidéo rek 100000 personnes mën nga ci gagner mën nga ci gagner 100000 francs billahi ben vidéo rek youtube mën na la ci fay 100000 pap aligna ay millions lay am c'est normal parce que Dakar Matin dafa am ay employés dafa leen war a fay waaye nag ça ne veut pas dire que da ngay invité ñoo xam ne ah di wax ma Madiambal Diagne sama grand laak Aly Ngouille Ndiaye di invité ñoo xam ne vraiment ah euh, jaruñoo invité sa émission am na ñoo xam ne jaruñoo invité parce que yow nee nga Sonko ngay waxal baatu Sonko mais surtout invitation sax dara nekku ci bu la neex sax nga invité ñëpp mais li mu war a bàyyi mooy Sonko dafay joxoñ keneen. li tax may attaqué Maimouna Bousso Bousso musuma attaqué dama défendre ci mois bi ko parce que képp ça, fi wax joxoñ dinañ man amul Bousso amul Pape pas doon ku fi nek tapette dinañu dinañu fi ñu Ousmane Soko. bi ngeen wara wax dañ dafa wara ness xaar une dernière fois image yu Ndella Madior pour ñuko pour ngeen xam ne sorcière bi ku ko défendre rek yow sorcière nga comme moom Ndella Madior ku ko défendre sorcière nga comme moom xaar leen ma wan leen tuuti waaw kay tuuti rek ngeen xool image yi bébé yi bébé yi rek boo leen gisee ni ñu dankaloo ci benn lal te moom dafa xam ne dafa woo invité Seneweb mu xamne ne Sénégal bi nga ñëw mu defar ba mu nice xale yu wooyu mu nëbb leen parce que xale yu wooyu kenn gisatu leen solo leen ba ñu rafet dégg man man nga mo fi nek dégg man amna dom doom dégg assuruma am naa de 30 ans am benn doom de yëgul sax li xew dégg nga wax ji kon lii dama ko def pour jàppale lutter contre l'infanticide donc am des femmes yoo xam dañuy ñëw fii accoucher dañuy ñëw accoucher fii. dégg nga mu yóbbu la hôpital terminer terminer le le processus parce que maa ngi tàggat ko doole médical bi. dégg nga des cas yoo xam ne xale bi génn na ba pare il faut réagir. dégg nga am na cas yoo xam ne bopp bi day génn carrément gis bopp bi. il faut réagir. dégg nga on a été formé ici. mi ngi wax ak mel ne ay doomu tubaab lay waxal bu may wax doomu tubaab nag waxuma doomu tubaab de jouer jouer bopp bi génn ah jumbax bi bu génne maay dagg corde ombilical bi ah sa sàmm jooba kaa xaaral ma tegal leen ko xale bi dee defe naa fii la koy waxee

dégg li rek moo may dëggal ak coow désiré que man sama parce que euh, Désiré en tant Désiré Fabien Diouf. moo fi jour bu mu fanaanee foofu jour boobu la ko nampal quatre biberon. abandonné ko au quatre étage de euh, si après le matin ñu ne ma respiré tout. dégg nga lii mooy dëggal tey. dégg ngeen <laughs> lii dégg ngeen ko may vous déggul lii xanaa Désiré Fabien Diouf jël bi.

sur euh, Ndella Madior te wax na wax yu gën a garaaw yi ah ne wax na ay wax nee na biberon yoo xam ne kenn raxasu leen xale yi seen biir di daw wax na ko déshydratation wax na fi aussi euh, euh, gars yi dañuy tayal di di jox xale yi ñu lekk parce que nampal dafa yàgg léegi ñoom dañuy dañuy tayal moo tax xale yi jeex wax na ko lépp daal mi ngi imputé responsabilité au nounous lan la waxaat nee na aussi bu amee ay mbóot dañuy pomper baygon mais lire fu mu nekk waru fa pomper baygon c'est trop toxique baygon baxul sax ci adulte waxtu malaak ci ay lire et cetera et cetera li américain di wax everything you say can and will be used against you in a court of law lepp lo wax ci vidéo commissaire Sangaré xamu Diallo dina ko jël da koy utiliser contre toi li rek ay preuve la que ne am na bu dé mom ci bopam moko wax néna na Souleyka dafa dé c'est fabien moko ray mais Fabien yooyu yaa ko jël gars je ne vais pas m'attarder xaaral une dernière image

voilà léegi li ma mën a expliquer mooy mais lenn a Bousso def leen très attention ci moom c'est une manipulatrice gis nga képp kuy waxal Pastef te waxul ne Ousmane Sonko dafa war a nekk candidat kooku bu waxee da ngeen ko war a da ngeen war a saaga ndeyam parce que ñàkk fayda weesuwul sa moroomu góor Macky Sall di wax ne yow yow yow waa gis nga li ma la wan am na yu gën a garaaw wane ay bébé mu yor pous pous di ko bi fekk ben bébé ni rek ma jor fi muy non ci ginnaw amna ben mindane dafa ñew japp xalé bi fi lo japp ci ben bi ni la ko jappé ni mel yor sac kay ana sama sac. bi ci ci bi la japp ci mbaggu bi ko dox ngi def interview de faalewul sax cent cent personnes cent lire. est-ce que 20 vingt personnes mën na mën na mën na occupé wu sans lire ci benn kër 24 heures sur 24 bébé nga xam ne dafa soxla 24 heures sur 24 da nga war a changer couche da nga war a sang danga nga war a biberon biberon doo ñëw rek def biberon da nga war a defar meew bi dafa am fu mu war a jaar frigidaire mais loolu est-ce que 10 personnes vingt personnes mën nañ ko def 24 heures sur 24 nañ waxante dëgg moo tax xale bi Souleyka ñu abandonné ko moom moo ko dañ ko abandonné au quatrième étage